waaw dafa leer Ramdan numéro 2. Ramdan Junior. numéro 2. am na boppam loolu ko war a leeral man maa Ramdan am na boppam kan mooy numéro 2. da ngay laajte. yàlla xam na ne maay numéro 2 bi. ndax ngay leeral. non damaa xam ne man sel. man Ramdan ndeysaan na ko yàlla yërëm maa ngi koy ñaanal fa mu nekk gënal ko fi mu jege. ak mboolem jullit mu fa nekk. waa di wax auzu billah rek. bismillah inna wali yàlla ginnaaw ma sant yàlla julli ci yoon bi. amagoo combat. non amaguma maa ngi sant sama ñaari waajur bu baax di leen ñaanal ñoom tamit fa ñu nekk gënal leen fi ñu jógee. sa combat bi passé waa ji xaw na laa rey. waaw loolu làmb noonu lay demee. yàlla xam na ko dama daan bëre ak ay nit di leen daan kon tey bu ma ñëwee bëre mu am nu mu demee rek dama koy sante yàlla di sant ñi ma doon jàppale nag ci combat bi bu baax a baax ndax combat bi moom yàlla xam na ne jàppale bi ma ci am mosuma koo am mais eh, da nga jël adversaire bi te xamoo ko. yàlla xam na ne xaw ma ko loo Karim suur boobu noonu laa koy doog a gis. mais loolu lépp nag ci ménagères yi la ko quoi mais xam naa ne juumte la mais après dina dinañ ci def ay waxtaan. waaw bu ko weesoo nag di sant waa Kastoor tamit sama waa gox maa leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm. waa waaw di leen wax ñu gën a jàpp di san sant tamit waa Caaro yi parce que temps yi Caaro yi laa dégg maa ngi leen di sant bu baax di sant sama mag bu baax a baax barke alxuraan moo ma yor keram bibi sama mag boobu yàlla xam na ne mënu ma koo fay ci àdduna moo ma yor keram di ma defal lépp barki alxuraan yàlla baax na konda maa lay ziar ñu lay ziar bu wër delloo ziar bu baax tey da nga leer di waajal ah yaa dara instant déception total la am lu tax déception ah xale yi ndaw waaj combat 4 mois nga ñëw ba combat des 5 jours ngay dugal ay médical yoo xamante ne kenn xamul fu mu jugee loolu tamit. médical bi dafa dafa mel ni vérifié nañ non mais médical baaxul. cinq jours du combat cinq jours du combat léegi xamoon ñun ay mu jullit lañu dañoo waroon nangu dogal mais ndogu dogal ci loo xamante ni lu leer la ñu bu ñu xamoon ne adversaire bi carrément dafa gaañu amul problème boobaa tan lañ koy ñaanal ba mu ñëwaat ñu bëre ko si jàmm mais ngay bëre ngay xam ni yow ki nga sa adversaire dara dalu ko loolu dafa xaw a métti quoi. technique sa waay dara dalu ko. xam naa ne man tuuti naa pour wax sax mais promoteur bi nga xamante ne moo yëkkati xaalisam financé fi xaalis am na fu affaire yi yegg waaw dañ koy bàyyi mu pousse ko moom lu koy yoon may mu jël waaw man amuma dara lu am dara kii man daal lenn laay wax daal métti na métti na. waaye war nañu xoolaat médical yi ñuy dugal ak tamit temps bi des parce que CNG ñoo waxoon bu desee une semaine wala 15 jours amoo droit dugal médical. bëri na fi ay mbëri dugal ay médical mais pourquoi pas kon mais Boy Seye 2 médical bi mu dugal est que c'est pas vérifiable tamit. dañ ko war a vérifier parce que man xam nga laa gëm man damaa gëm benn affaire gis nga nit bu jëlee ay millions xale tegu ko combat yow boo demee ba mu des cinq jours nga ni yow da ngay dugal médical kooku tamit promoteur bi nga xamante ni c'est l'engagé parce que promoteur bi amul benn revenu bu ñu koy delloo fay ko am na droit moom tamit ñëw ñaan CNG pour mu yóbbu ko ci médecin moom mu xooloo ko ko. CNG na médecin. waaw mais bu médecin boobu noonu dèjà dindee ay ay responsable dem nag. mënul dindee ay responsable yëpp parce que moom dafa prêter serment. non sa waay médical boobu amul. médical boobu jàpp na booy sëy dafa tapale. bu baax tapet la gis nga nit boo ñemewul bul jël. boo ñemewul bul jël booy sëy ñu bëre la gën a tàng anaconda. billaay wallaay taalaay ñun garaawul ñun tànguñu defuñu dara. mais ñemeel munoo fi taxaw caméra yi tiim la nga wax lu ne. nga leen booy sëy bu dofa dof bi booy sëy bu lii booy sëy bu laa nga ñëw sa drapeau. ñoom na taneeg jàmm. amiin waaw. ana ana. mi ngi fi mi ngi wàcc ci leneen. waaw di xooli sunu kanam. loolu lañ nekkee saa yi nii.